parce que dañuy dem ci ay échéances yu am importance muy tabb njiitu réew alors il faut que des gens comme nous des citoyens euh, taxaw ci seen dëkk bàyyi lépp toute proposition ñu jël ko jëlee ko teg ko fële tout contrat comme ay tournée yoy ñu jël ko contact ko pour le moment nek ci suñu deuk concentré wu ci li nga c'est très important c'est l'avenir qu'on va décider c'est l'avenir qu'on doit décider le 24 février mais que gi sa carrière mom lay continuer après ça maintenant euh, sensibiliser encore ki nga xamanteni le président de la république ak le ministre de l'intérieur ñu joxé électeurs yi sen carte ñu sénégalais yi carte ñu dem décider ñu mën exprimer wu je pense que jàmm ji ma maa ngi dégg ñu naan ay dialogue ay jàmm li indi jàmm lenn kese Sénégal c'est un pays de droit c'est un pays boo xamante ni euh, tout le monde a son mot à dire te ni mu koy waxee c'est avec sa carte électeur gars yi euh, li ñu waxoon ba nous ñu ngi koy déroulé wax nañ parrainage ñoo nañu imposé ko Boun Abdallah Dionne wax cinq personnes ñooy dem présidentielle ñu ngi confirmer donc est-ce que nous nekkuñu di dérouler quoi est-ce que Macky Sall du à cette élection Euh, il faut même pas penser ça que c'est possible cette élection lañ sénégalais tout le monde sait que le gars il est minoritaire c'est le président le plus impopulaire de l'histoire de c'est le président qui a fait ni micro trottoir Il a dem 100 personnes 99 vingt dix neuf yi dañ la fait bu mu fi sax alors kooku moo tax muy d euh, mu ngi mu ngi pexe lu ne pexe na parrainage Abdallah cinq candidats ñooy dem d'accord anyway mais ba benn candidat buy dem ak Macky buy nekk sax ma Samba wala ma Paate daf koy gagné daf koy gagné vu les sondages Macky Sall ne peut pas passer en premier tour loolu moom kuy dul sénégalais kuy ku le xam nga ko alors de grâce na sénégalais yi pare dem def opération foqati sama carte fu carte sénégalais yi nekk nañu fexé dem jëli buñ ko jëlee le jour J ñu dem voter ji té buñu voter ñu taxaw sécuriser sen vote et je pense que ni lolu buñ ko défé comme niñ ko wara défé euh Macky Sall ne passera pas boo moytuwul deuxième tour sax ñeneen ñaar a koy jongonté mom mom du ci bokk. mais Thiat Macky bu faluwaatee est-ce que secret d'état bi la génn. secret d'état mom kenn mënu ko téré génn. ñun ñu ñun ñoo wëy yalla subhanahu wa taala mi yoré bakkan yoré wër tank mu ñu may. kenn mënuñ ko téré gëné parce que ñun lépp lu ñuy def ñoko défal suñu bop xam nga ñun suñu album ñoko produire suñu bop donc gisuma mindeef bu ñu mën a wax ñun li ñu bëgg wax tej ñu kasso mom tej nañu ci ñent mur donc buñ gëné nek ci lañ nekkon li ñuy wax ñëk ñu ko tambalé ci Abdou Diouf wëyel ko ci wad diko wëyel ni ci Macky danañ ko wëyel ci prochain président bi di ñëwaat dinañ ko wëyelat ci keneen ka ca toppaat tant que yàlla ak ñuy may bakkan di ñu may wér ak kattan danañ wax li ñu war a wax dinañ waxal askan bi dëgg il faut pas que nit ñi am ay inquiétude ay nangam sàngam sangam di jaaxle kilifa wax na la ko léegi boo pertee diaspora perte Dakar perte Thiès perte Diourbel ak Touba perte Ziguinchor munoo fee gagné élection munut nekk donc ñëpp xam nañ ko dafa bëggoon dawal santiment wu noo dañ koy sàcc ñun dañ leen dalal seen xel sénégalais yi amul fu mu mën a jaar pour sàcc élection nañu jox suñu carte ñu dem voté pareeg moom leer na. sàcc bu la tàggu. ne la dinaa la sàcc su suba. bu réussir yaa ko bàyyi mu sàcc. kon bu sàccee askan wi ñoo ko may. mais ñoo ko ko may c'est clair. surtout le mot de la fin. assiéger leen les les les les les bureaux de non les préfectures et les polices allez prendre vos cartes ku am 1000 francs mayel ku amul mu paas ku am oto yóbbaaleel ku amul mu dem.